nekk di am fii ni Sénégal dafa jéng bu baax a baax marche nag la tax ñu def ko mooy maanaam ñu fexe libéré détenu politique yi waaye tamit euh, ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall mu tekk li nga xam ne moom mooy une euh, troisième candidature am waaw xam nga sànq maa ngi maa ngi maa ngi ko doon junj parce que mhm. weekend bi nga xam ni en tout cas moom la ñu nar a dëgmal mu doon weekend boo xam ni parce que ñii di waa FRAPP effectivement mhm. euh, dañu fas yéene le samedi le 17 2023 ñu defar benn manifestation bu mag fële ca mhm. terrain Anselme Grand Yoff en face euh, du stade Léopold Sédar Senghor benn manifestation pacifique bi dimanche 18 juin lañ ko bëgg defal fële ca kanamu kër Ousmane Sonko euh, ngir kon na daal di def li nga xam ne en tout cas moom la leen moom la leen euh, yoon may parce que euh, gis nga les choses maanaam mbir yi euh, dañu commencé nekk affaire yu des des choses quand même parce que boo xoolee mhm. note d'information bi nga xam ni Nations Unies maanaam ñi nga xam ni dañuy xeex kuréel gi xeex lii di àq ak yelleefu doomu aadama droit de l'homme mhm. ñoom dañu bind benn note d'information sur le Sénégal boo xam ni mhm. en tout cas Euh, tey boo xoolee man su ma gisee <laughs> xam ni moom mooy ministre de l'intérieur ak kii euh, procureur ñu ni dañu bëgg a jël enquête yi yu jëm ci wàllu nervi ak nga xam ni euh, dañuy yore wàllum arme à uh-huh. ñu nii dañ koy jox la police bi nga xam ni ñoom ñoo doon accompagner wala ñoom la ñu doon gis je confirme rien ñoom la ñu doon gis en tout cas ay nervi ci seen wet ñu mel ni que dañ leen doon accompagner ñoo tey bu ñu leen bëggee confier ay uh-huh. enquête ñu war a enquêter ñooñu mais ça pose problème loolu dama jàpp que ni <laughs> te ils sont obligés à que ñu def des enquêtes euh, des des des des nu mu tuddati ay enquêtes yu yu yu yu yu yu leer yu jaar yoon. Mhm. suñ ko deful sinon bu moytu ñoom danañu envoyé seen équipe yoo xam ni danañu ñëw. Mhm. def enquête yu indépendante su boobaa man euh, biir na ma ni. Euh, mbir yi dina métti lool parce que ñoom ñoom effectivement ñoom dañu wax que ni <coughs> gis nañu Sénégal situation bi ni muy évoluer ni muy ni muy évoluer te ñoom am nañu. Euh, vraiment euh, tiis ak njàqare ci li nga xam moom moo fi nekk di xew ci semaine yi passé parce que lu toll au moins ci seize personnes ont été tuées mhm. euh, trois cent cinquante blessés et plus de cinq cent arrêtés lors de trois euh, jours de manifestation yoo xam ni entre le premier et le trois juin la maanaam mhm. ci ñetti fan yi rek ñu wàññi ci seize personnes yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan mhm. c'est quand trop trop ñu ne l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité lors euh, des manifestations constitue un sombre précédent pour le Sénégal nous notons que les autorités ont ouvert euh, les enquêtes et nous leur demandons de veiller à ce que celles-ci soient rapides mmh. indépendantes et approfondies c'est extrêmement important na gaaw euh, nañu ko nañu ko nañu ko bàyyi xel mu gaaw maanaam na na indépendante te itam na doon enquête yu xóot yoo xam ni lépp dina leer. et qu'elle amène quand même euh, toute euh, personne trouvée responsable de usage de, de de de la force injustifiée ou euh, disproportionnée. Mm -hmm. à mhm. rendre compte de leur actes quel que soit leur statut. et leur euh, affiliation politique et c'est ex li moom ci gën a amal solo. Mhm. et c'est extrêmement important mooy que ni ñoom fii nii. Mhm. tey làq doom dóor doom ji. dina am cette fois ci du am. maanaam ndomba tànk boo mënee ci politique nekkal sax président wala cour de la haine. Mhm. bu fekkente ne danga laal ci mbir yi nii nañu la identifier ñu teg la ci yoon comme ni ko yoon santaan yi amul laq-laqal amul dóor-dóoral kon c'est à mhm. c'est à tey ñoom. Mhm. maanaam am nañu obligation wu. def ay enquête yu leer naññ du am benn parparloo. mu ne nga nekk ministre wala DG ak foo manti ne. bu dee danga nga naan recruter ay nervi nañu la identifier ñu ñu ñu ñu wax ni kii dafa daan recruter ay nervi yi nga xam ñoo ñoom ñoo daan utiliser arme à feu yi nga xam dañ koy tirer ñuy faat boy yi mm-hmm. kon tey lii nii c'est une très bonne jàpp naa que ni te euh, c'est c'est ci ñenn ñi nga xam ni mm-hmm. euh, dañuy amoon ay privilèges am ay faveur parce que nag mm-hmm. ñun li ñu yàgg a nemmee ko ci réew te moom métti ñu bari sonal ñu mooy que ni kumba am ndey ak kumba amul ndey tey nag bu ñu gisee ñoo xam ni xëy na ah olof Ndiaye def dafa ni garab bu sutul du la may ker te jàpp naa que ni lii nii doon na mbir bu dal xel boo xam ni parce que tey bu fekkente ni situé nañu les responsables. Mm-hmm. ah yuuxu dana jug fu ñu ko foogeel boobu moytul de. bien euh, bu fekkente ni ñu ko santaane ni defe nañu ko noonu. Mm-hmm. ak. parce que tey Sénégal moom boo xasee nekkee ministre wala DG pour ñoom kasu jomb na la alors que warul deme noonu ñooñu sax le fait que nga nekk heure boo nekk ministre da nga war a xam ni sa benn tànk mi ngi ci kaso benn baa ngi ci bunt parce que mm-hmm. heure boo defee naka dul noonu mm-hmm. waruñu la bàllu toll ne tar fatal ani mais malheureusement fii Sénégal ngay gis mm-hmm. ministre wala DG boo xam ne rapport day génne ni luubal na nangam ñu jël ko sax jox ko ndomba tànk bu gën a kawe. et c'est malheureux kon cette fois ci dama yaakaar kay ni xëy na. pour uh-huh. au moins pour la première fois. Uh-huh. ñu def enquête yoo xam ni euh, yu yu indépendante lay doon lu ko mooy. Uh-huh. Euh, ñoom danañ yeew mën nañ yeewal seen équipe yoo xam ne bu ñu dikkee. en mën nañ fi gis sax loo xam ne ñoom taxul leen woon a jóg. ñoom a ñu dugalaale ko ci. voilà mi ngi noonu comme ni nga ko waxee mu nekk lu am solo ñu gis ne waa FRAPP euh, Ndeya. et voilà ci frappe bi ci ci bi ba. kon nekkoon ci frappe bi bi ma bi nga ma ma laajoon. mais effectivement non dama ko dama ko fàtteewu daane laale rek parce que tey. loolu itam ci xeex bi la bokk. ñoom ñoom loolu moyens yooyu la ñu la ñu am. waaw ñee dañuy ñëw pour gën leen a dooleel rek mais xam naa ni. nañu xaar ba xam dañ ko interdire loolu duñ ko duñ ko <laughs> duñ ko interdire. voilà mi ngi noonu en tout cas ñoom annoncé nañ seen ñaari marche yoo xam ne. Euh, fas yéene nañ ko amal samedi 17 ak dimanche 18 maanaam ci week-end bi euh, ñu koy def fële en face fi nga xam ne moom mooy stade Léopold Sédar Senghor ak dimanche bi fële na la ca buntu kër Ousmane Sonko ndax ñoom jàpp nañ ne que euh, yoon dafa daal di jéng moo tax ñu fas yéene amal loolu pour ñu libérer les détenus politiques waaye tamit Macky ki nga xam ne moom mooy président teg waxu troisième mandat ci suuf. effectivement Fatima comme ni nga koy waxee waa FRAPP ñoom dañoo daal di woote li nga xam mooy ab manifestation xam naa ne ci bi moom dina nekk week-end boo xam ni euh, week-end u tiitaange la fay daal di euh, doonaat buñ ko autorisé wul amaana fi Sénégal mm-hmm. manifestation bu ñu autorisé moom. <laughs> Ah, ñëwal mais xaw xaw àggale si parce que ñoom nee nañu. voilà lu ñu wax. Euh, le haut commissariat des Nations Unies aux mm-hmm. droits de l'homme offre son assistant à cet égard maanaam ñoom sax bu ñu jëlee enquête di ko def danañ leen yebal ñoom ndaw goo xam ni <laughs> dafa leen gunge ci enquête dafa leen gunge ci enquête yooyu loolu. kon genn luubal du ci am. Mm-hmm. <laughs> waaye c'est lu am c'est très important nous sommes euh, également préoccupés euh, par la poursuite euh, des restrictions à la liberté d'expression et des réunions pacifiques à la suite des manifestations Walfadjri TV une chaîne privée waaye man texte bi ndeke triis na de mm-hmm. une chaîne privée qui couvrait les manifestations en direct a été suspendue le 1 juin sans justification égale clair et n'a pas euh, toujours pas été euh, rétabli à ce jour. Mm-hmm. Un communiqué euh, du gouvernement a indiqué que la suspension durée euh, durerait 30 jours, le gouvernement a également ordonné la suspension d'une euh, campagne de financement collectif pour la chaîne visant euh, à la mhm. soutenir pendant la période où elle n'est pas en mesure de diffuser c'est-à-dire kon mmh. Sénégal moom ñun ndekee ndekee maanaam euh, bu ñu demee nag ba jaay doole ji ñëpp xam ne ni ñii moom jaay doole kese moom moo fa parce que mhm. comme coupure signal wala fajo bi itam vraiment Euh, démb dem naa fa ak 313 euh, digital. Mhm. mais acte boobu noonu. Sénégalais yi dañ ko manifier tellement que parce que ay détenus politique maanaam ñu ñu tëj ñu ne ci kaso bi. ñu génnee seen ñax di ko jàppale groupe boobu di Walfadjri TV. Mhm. nekk na actu boo xam ne en tout cas. Mhm. marqué na bu baax baax ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi kon tey eh, ñii en tout cas seen communiqué bi jaakaar naa ka ni mhm. euh, gouvernement bi war na ci mun a sukkandiku ba lu bare bari mu merci beaucoup mm. mu mu mu mu mu delloosi mu mu delloosiwaat yu ci yu ci yu ci bare bari mhm. eh, c'est très euh, important mhm. euh, tey nag en tout cas pour la première fois xëy na ñu def enquête boo xam ne xëy na sénégalais yi mën na ni gong. Mm-hmm. en tout cas soxla nañ ko bu baax a baax daa ma bàyyi la nga continuer. voilà effectivement comme ni mu ko waxee rek FRAPP ma ne euh, maanaam série de manifestation yi nga xam ne. Mm-hmm. Euh, war na koo def ndiki ci week-end bi nii. Mm-hmm. Euh, benn bi foofu noonu ci stade. stade terrain HLM Grand Yoff en face stade Léopold Sédar Senghor lañ ko war a def samedi bi euh, dimanche bi itamit ndiki noonu mhm. ñu bëgg ko def foofu noonu ci cité kër euh, góor gi de 10h à 14h espérons bien mhm. euh, que ni yilee yilee série de manifestation ñu daal di koy autoriser parce que ñoom ñu ngi wax que ni le 12 13 14 ak 15 bi mhm. pourtant préfet moo ko daal di gàntal ndax lan pour permettre euh, maanaam élèves yi nga xam ne ñoo classe de terminale pour ñu mën a euh, def seen baccalauréat technique loolu moo waral ñoom ñu daal di accepter te en plus le 9 bi euh, aussi tamit dañ ko ba le 10 bi aussi tamit dañ ko préfet daf ko gàntaloon mhm. n'empêche ñoom ñu daal koy respecter le 17 bi nag lañ bëgg tenir la nga xam ne nag frappe mi ngi wax que ne moom la bëgg dénoncer boo ko def ci troisième candidature bi nga xam ne président ak li ni mel mais ba léegi président moom àdduwu ci mais ñu ngi koy waxtaanee ci suuf itam libération des détenus politiques mm-hmm. ak tamit ñi nga xam mm-hmm. a euh, ne ñoo na mm-hmm. euh, ci euh, régime président Macky bëgg nañ dénoncer li mel ak tamit séquestration Ousmane Sonko ñu daal koy dindi parce que blocus bi jusqu'à présent ma nga foofu noonu ñoom itam bëgg nañ xeex loolu ngir ñu daal dindi li nga xam ne moom mooy barricade bi waaye aussi tamit liquidation des adversaires adversaire politique euh, comme Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Saloum mhm. ak ki nga xam mooy Karim Wade ñoom itam bëgg nañ xeex loolu parce que bëgg nañ am élection yu transparente yoo xam yu lay doon yu yoo xam ni ñëpp dañu mën a bokk mhm. euh, ñu tëgg li nga xam mooy élection yu yu leer nañ mhm. askanu senegal tànn képp koo xam ne wala kenn ku ñu tànn sax laay wax euh, ñu xam ne yow mii la askanu Sénégal tànn après ñu ñu def la suñu président koo xam ne tànn ñu la ñu xam ne tànn ñu la mais bu dee dañuy saytu ñan ñooy dem ak ñen ñooy di dem loolu dafay nekk maanaam recul démocratie euh, dafay daal di am waaye tamit cinquième bi bokk na ci euh, signal Walf bi nga xam ne dañ koo coupé loolu tamit na ca la nga xam ne mhm. euh, dañ koy xeex wala bokk na ci la nga xam ne dañ koy def benn manifestation mais pacifique nag la fay dal di doon ak l'utilisation des nervis mhm. ñu daal di koy arrêté ndax xool xam nañ gis na depuis 2021 ba léegi manifestation bu amee nervis dañuy daal di ñëw tamit armé wu mhm. parce que ay nervis lañ leen mun tuddee xamuñu exactement fan la ñu nekk kan moo leen recruter loolu tamit nekk soxal na askanu Sénégal mm-hmm. euh, bien vrai que le ministre de l'intérieur Antoine Félix Ndiome mi ngi wax que ne euh, dinañ ubbi ab enquête daal di koy jëmale ca boobu le mbir ñëpp daal di ci kontaan mais nag am na ci ñenn ñoo xam ne euh, ña mm-hmm. am suivi mais espérons moo am parce que soxla nañ ko loolu ñoom itamit loolu yëpp bokk na ci la nga xam ne mm-hmm. nar nañ koo xeex nar nañoo def pas xeex sax mais nar nañoo def marche pacifiquement ngir naqaru la nga xam ni moom moo am jamono jii nii mais euh, man sama naan Fatima nañ leen ko autoriser. Mhm. ñu def ko pacifiquement après ku nekk mën a dem ñibbi këram. mais buñ leen ko autorisé wu mën naa ne. Euh, mën nañ ci yoo xam ne ku ne xam na ne Sénégal jamono ji ak fi mu mhm. toll nii. Mhm. jàmm stabilité la ñu daal di soxla te loolu noonu préfet bu Ndakaaru. moom nañu ci jàppale li nga xam moom mooy yilee marche ñu def ko pacifiquement. a dem ñibbiwaat sa kër. comme yeneen marche yi nga xam ne dañ ko autorisé ni mu demee woon mais boo ko bëggee gàntal ñoom ñoo dañ ko def par la force loolu tamit dafay duggal ci yi nga xam ne moom mooy réew mi guuta mm-hmm. te li nga xam ne ñoom fas nañ koo yéenee def mm-hmm. fas nañ koo yéenee euh, taxawal ndax yoon dafa jeng mm-hmm. euh, ñoom loolu lañ daal di woote yoon dafa jeng léegi nag ponk yi nga xam ne ñoom bokk na ca la waral ñu wàcc sur le terrain nekk na ponk yoo xam ne soxal na askanu Sénégal troisième mandat soxal nañu blessé yeeg ñi gaañu soxal nañu ñu torturé soxal nañu ak tamit li nga xam moom mooy liquidation des adversaires politiques moo xam Karim Khalifa Sonko ak keneen ak keneen soxla askanu Sénégal blocus bi ay militants Ousmane Sonko bëgg nañ euh, ñu dindi blocus bi sénégalais soxla nañ ko ndax lan ndax bëgg nañ démocratie mën a euh, restaurer ñu restaurer waat li nga xam mooy démocratie parce que moom mooy taaral ab réew mhm. ak yeneen yi nga xam ne ba ci euh, signalu Walfadjri bi mhm. askanu Sénégal soxla na ko maanaam ponk yi nga xam ne yëpp dafa soxla dafa soxal askanu Sénégal mhm. moo tax ma ne nañ ko autoriser ñu def ko pacifiquement ñoom ñu def ko pacifiquement après ñu xool fa la waane di mu jëkk ay gëtam voilà loolu daal a nekk loo xam ne lu am solo la. Uh-huh. Euh, ñoom mais daal nekk na daal weekend boo xam ne. Mm-hmm. Euh, tiit nañ ci daal mais espérons bien que ne préfet dinañu mën a génn ci tiitaange boobu euh, la. comme ni nga ko waxee euh, mu nekk lu am solo espérons bien moom préfet mu daal euh, fexe joxe li nga xam ne moom mooy autorisation pour ñoom ñu mën a amal li nga xam ne moom mooy seen ay marche l'émission Tir à sa fin ñu doon waxtaanee. mais bala ngaa tëj ma dénoncé kàddu yi nga xam ne Cheikh Yérim Seck wax na ko ni ki démb. foofu noonu ca TFM. mu ne mhm. kàddu yoo xam ne dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax. Mhm. ndax mu ngi doon wax que ne Ousmane Sonko mbiram nañ ko lijjanti ci loi mu jeex une bonne fois pour toutes. Mhm. su dee sax quatre-vingt-dix pour cent ci ay sénégalais dañuy ñàkk seen bakkan ñu def ko dix pour cent yi continuer dund mu nekk ay ka moo yoo xam ne ñun war nañ di ko moytandiku bu baax a baax a baax mhm. pourtant déggu nañu am ñu wax ne ñi war a dee dinañ dee. Mhm. ñi war a tëj ñi war a tëj dinañ leen tëj. am na tamit ñi euh, maanaam insitation au crime la. Mhm. ñi nga xam ne euh, maanaam euh, par exemple ñi war a taal nañ leen taal wala am na ñoo xam ne dañ leen war a taal mu nekk ay mots yoo xam ne dañ koo banaliser au fait mën na jur dara ci ab réew. Mhm. nañ koy moytandiku bu baax a baax a baax parce que li nga xam ne Cheikh Yérim Seck wax na ko démb. Mhm. dañ koy condamner bu baax ba pare di ko dénoncer ba pare di ko woowaat tamit mu reveniraat euh, ndax la kaddu ya nga xam yëkkati na ko ndax journaliste bu mag la. ci Sénégal journaliste yu mag te tuddoo ko ci mais tamit kaddoom nga xam yëkkati na ko démb tamit

xam na ne ni ko olof di waxee rek wax moom bal la bu xasee ba génn kenn mënatu ko téye Euh, defe naa ne boo nekkee kilifa ci réew parfois war nga di xoolaat sa ay kàddu bu baax a baax ak lu mu ci mënti doon rek ak lépp lu mën a xew ak circonstance euh, bu mu mën bu boo xam ne noonu na la fekkee rek defe naa ne ku ne xam na ne bakkan euh, bu dee benn sax defe naa ne nekk na loo xam ne lu ñëpp war a mën a ñaawlu la waxatuma la nga ne quatre vingt pour cent yi bu fekkee ne dañuy génn àddina dem nekkul loo xam ne daal dañ koy rafetlu en tout cas nekk na loo xam ne doy na waar te ñu ngi koy nemmeeku à chaque fois ci suñu ay kilifa yenn kàddu yi ñu koy yëkkati alors que warul mën a nekk comme ni ñu ko waxee rek wax moom Ah, bu xasee ba génn rek génn na kon day baax parfois nga koy saytu laataa nga koy génne mu nekk lu am solo ah, ñu doon waxtaanee marche bi nga xam ne ñoom ah, waa FRAPP daal dinañ koy annoncé niki samedi ak dimanche bu njëkk ba ña ngi koy def fële ca terrain HLM Grand Yoff en mm-hmm. face stade Léopold Sédar Senghor beneen ba ca des dimanche ba ña ngi koy def fële ca cité kër góor gi ca buntu kër Ousmane Sonko ndax ñoom bëgg nañu ñu libéré ñi nga xam ne ñoom ñooy détenu politique yi waaye tamit séquestration boobu noonu ñu